jaaykat yi fare fii eh, ci marché Tëngéej ñoom nag eh, ñu leen di duppee ay marchand ambulant eh, jamono ji ñu ngi dundu ay jafe-jafe yu metti ci seen liggéey li ko waral nag mooy ñàkk bërëb bi nga xamante ni dañ leen fay bàyyi ngir ñu daan seen doole lii nag moo nekk seen ay kàddu. waaw man commerçant laa damay jaay quoi. ay lan ngay fëgg jaay laa xëy saa yu ma xëyee lal jaay waaye depuis Omar Cissé bi mu faloo ba léegi mooy maire de la ville Rufisque yeewe askan wi Omar Cissé depuis bi mu faloo ba léegi jaaykat yi amuñ jàmm mu ñuy toroxal guddi di ñu toroxal bëccëg fitna bu ne teg nañu ko événement bi xawtul ñu liggéey jaaykat yi ñëw fipp mu bàyyi leen ñu liggéey lendemain événement nag la ñëw dijjite marché bi yëpp te li mu waxoon defu ko danoon marché bi da koy léma dafa koy wutal limite mais seetlu na ne li mu waxoon kàddum yëpp dafa dañ parce que masse bi amul limite yëkkati ko yëkkati tout jaakar yëpp a ngi nii nag ñii dañuy xëy di daan doole sàcc ñu fenn ñu tuxuñu ñi dañoo bàyyi seen i ndey bàyyi seen i bàyyi ñii ci dëkk bi lañ dëkk juddoo fi yaroo fi kon ñun dañoo war a may ñu liggéey te réew mi fi mu toll nii laajul ñuy yëkkati jaaykat Omar Cissé nag sonal nañu huit yëkkati ñu guddi yëkkatuñu bëccëg sonal ñu huit jaaykat yëpp a ngi nii ñëpp ay jeunes lañ ay xale lañ près de 2000 personnes nga lim jàpp na daf ko nax mooy dafa jàpp ne marché bi la monsieur parti dëkkuñu fi te ñëpp fi la ñu dëkk bëri naa am naa jaaykat yoo xam ne xam naa leen moom la ñu votel mais lii mu def tey benn jaaykat d'accord ji kenn kontaanu ci barki démb la jug ànd ak commandant ñëw commandant Diop moom la àndal ñëw ci guddi gi déjjati taabal yëpp marchand marchandise su ambulant man yëpp ñu déjjati ko te li mu def di yoon du dëgg gis nga nit am réew boo ko yor doo ko yoroo nii bu fekkee fekkee da bëgg a da ngay woo nit ñi ci defar woo nañu menti fois nag ñun pour ñu dem toog ak moom mais moom bu waxee jox ñu ñun bu ñu waxee jox ko daanaan li mu wax mooy valide te nit boo ko waxee pour ngeen waxtaan da ngay jël benn mu jël benn nga bàyyi lenn mu bàyyi lenn loolu mooy waxtaan ñu ngi koy dégg ci réseaux sociaux mi wax guddi ak bëccëg nee na proposé nañu site amul benn site bu mu ñu proposé boo xam ne xaj nañ fa parce que fi mu ñu proposé jaaykatu ndugg yi sax xajuñu fa massament bi pile de 2000 personnes nga ne da nga leen dugal foofu loo xam ne daanaka 100 mètres 100 mètres carré loolu xajuñu fa mu ngi naan nag jox nañu xaalis mu ngi naan dañoo bëgg a jox xaalis ñu bañ ñun soxlawuñu xaalis soxlawuñu xaalisu kenn soxlawuñu xaalisu état soxlawuñu xaalis soxlawuñu ku ñu may xaalis ñu la ñu bëgg ñu organiser ñu ñu lal sës parce que territoire bii ñu toog fii kenn jaaru fi route bi géej la jëm bu ñu waxantee dëgg route nationale bi kenn lalu fa amul benn jaaykat boo xam ne ni ngay raar route nationale ba am kenn ku fay romb di ko rafet ñun ñoo ko njëkk a condamné mais voie bii jëm géej nañu bàyyi ñu lal fi te yàlla tax fii marché lay mos a doon bii may vingtième fois ñu ñuy nag te incha allah rabbi fii marché lay doon te ñu ngi koy xamal lu ci am responsabilité lay doon te ñu ngi saisir maire kii euh, préfet préfet mu ñëw réagir ci lii parce que jaakir dañoo bëgg a liggéey lu fi am seen responsabilité la jaakir yi dañuy liggéey guddeeg ñun sàcc ñu fen ñu ba ñu ko ñu tuj cent boo ñu tëjee cent fi fii ñu fekkaat barki Seydina Mohamed boo ñu tëjee cent bu ñëwee fii ñu fekkaat ñun liggéey moo ñu tax sàcc ñu fen ñu nañu bàyyi ñu liggéey te yàlla tax Omar Cissé nag sonoon na jaaykat yëpp te ñu ngeen lancé yeewi askan wi nag bu soobee yàlla ak yonent bi législative moom buñ xalaat benn jaaykat fii ci tëngeej voté leen incha allah rabbi ñoom buñ ko sax xalaat barki maam Serafal man yeewi askan wi laa mais du ma leen voté fii ci Rufisque parce que dañ ñu toroxal dañ ñu toroxal ñoom yeewi askan fii ci Rufisque te lii nag barki Seydina Mohamed dañ ci dem ak ñoom bam jeex ñun dawuñ ci dara gis nga li ñuy def nii làqatuñ ci dara ñu sàccuñu bay làqatu tuxuñu bay làqatu nëbbatuwuñ li ñuy def dawuñ ci lenn maa leen remercier ne di leen sant yéen waa Leral TV patente di leen ay impôt ñun juuti la ñuy fay chaque amul benn jaaykat buy lal fii doo fay juuti chaque matin. waaw li ñu ngi leen di ñëw di leen yi da instant yi laluñu parce que laluñu mënuñoo dagal juuti parce que ku lalu mënoo ko dagal juuti mais bi ñuy lan ñoom chaque jour dañu daan ñëw ñu ngi dagal juuti chaque jour ñu ngi dagal juuti loolu lañ daan def. mu mel ni daan waaw damay daan sama doole indi fi samay jaaro samay bagage yëpp ñu roñ yóbbu ba ma mujj gis nga ko big laay jaay xam nga li rafetul de te nga ne da ngay jaay si maa ngi nii big fukki dërëm laay jaay ñaari cent franc loolu rafet na ñi dañu bàyyi ñu liggéey ñun la ñuy liggéey sàcc ñu fenuñu ñoom fi mu toll nii sàcc sax la ñuy encouragé ñu doon liggéey ñëpp dàq nañ leen xale yu góor yi doon daan yëpp dàq nañ leen ku teg ñu jëla la fi xanaa ñoom sàcc yi lañ bëgg boog ñu avancé léegi ñuy daan seen doole lañ leen di dàq Macky Sall daal war nañoo wax si moom mu dimbala ñu man faloo ba léegi dara baaxatu fi ñu dañoo bëgg a liggéey barki alxuraan karim ay quatre heures du matin la ñu jug dem Colobane wut suñu bagage ñëw daan suñ doole lu ñu am bokkaat suñu da ak suñu baay ñun suñ teraanga fii la ne ñun fii moo suñ base ñun fii lañ xam ngir yàlla war a sóol yi Omar Sy wax leen ak moom mu bàyyi ñun ñu liggéey sàccuñu fennuñu dañuy daan suñu doole. dëgg yàlla metti na trop ndax ñun xam nga ne magum jëm mu yeewu quatre heures man daanaka man quatre heures fii la fekk jënd sa bagage si ñëw bëgg a toog ñun da doo jaay xam nga loolu metti na boo lalee ñu laal di ko sotti ci oto bi yóbbu xam nga loolu métti nan nu dimbali rek may ñu fu ñu toog jaay wala ñu defar foo xam ne sax ñun bu nu fa yóbboo ñu toog leen fa ñu toog fa jaay mais bañ a liggéey moom kenn du ko def ku liggéeyul xanaa da sàcc nan nu dimbali ki nekk si maire beeg Macky Sall ñoom nanu dimbali utal ñu fu nu toog liggéey loolu mooy solution bi wax dëgg yàlla man loolu rek laa amoon lu ma ci wax maa ngi ni ñetti fan yoo xam ne xëyuma parce que magum jëmm mu am juróom benn fukki at mënul di ambila ñu jël bagage sam di ko dóor di ko dàq non man romb gisee ngeen taxaw rek naa taxaw su ma su ma doon sànni tuuti lii dafa métti ko soo ko foo ko yóbbu fu leen yóbbu non nañu waxante dëgg dama doon dem sama yoon jën laa doon uti si biir dama dox fee fee gisuma lu xew te daa mbëkkante ñu jël bagage jaam di ko nan arrêté waaw soo jëkkatee nit ki foo ko teg fu leen léegi loolu bëgg ñoom ñoom sàcc yoo ñu leen fenn kuñ ci jàpp yóbbu la police tëj la fa nañ ñu dimbali Macky Sall la ñuy interpellé direct nañ ñu dimbali utal booy yi fu ñu liggéey chaque jour ñu ñuy nax ay deer ay affaire yooyu ñu dañoo sonn booy ñaan ñu kenn liggéey rek la ñuy def nañ leen bàyyi ñu liggéey une bonne fois une toute nit ki soo ko yëkkatee utal foo ko teg fii ñuy toog di jaay yàqalu leen dara. dëgg yàlla dañoo amatul fu ñu toog rek war nañoo war bay bëgg a dee fu ñu toog jël fu ñu toog jóge jëlañu mais loolu tamit nag war nañoo may nag ñun tam ñu toog nag may ñu jàmm ak salaam waaye fi mu nekk nii buñ jaar ñun nu ñuy def ñoo ngi yor suñuy xale yor suñuy njaboot ca kër ga bàyyi sa njaboot di ca kër ga fi mu newul nii buñ jaayee nu ñuy def nañu bàyyi ñu jaay wala ñu xool wala ñu fan la ñuy teg ñu jaay waaye fi mu nekk nii wër di dem fii di dem fii dem fii fu ñu teg ñu nañu jëlee moo tam neexul du neexal ci xool di wax dëgg yàlla ñun moom dañoo sonn moom wax dëgg yàlla war nañoo wax fii la ñuy teg wala ñu nañu léegi nag ñëw leen ngeen jaay fii waaye waxuñu dara ñu ñuy wëndee loo rek loolu tam soo ba léegi maa ngi ne gàddu sama soo mënu maa fexe ba am lu ma lu ma yóbbu sama kër soo jamono ji yéen a ngi jafe-jafe. yu méttee métti sax nag wax dëgg yàlla yu métti nag ñi war a ndugg mënuñoo am fu ñu nduggee ñii di jaay mënuñoo am fu ñu jaayee xam nga dëkk bi métti na ah dëgg yàlla moom dëgg dëgg moom lii neexul moom war nañoo may ma daal dañoo dund bu métti la ñuy dund instant bi marché bi dañ fiy jaay ñii dañoo yor ak njaboot gu sew seen baay dee wàcc leen fi ñu takk seen digg yaakaaruñu ko ci kenn du ci marché bi bu xëyee ñoo yëkkati ñu ñii ñëpp dañuy liggéey benn bande amu fi ñoom ñëpp dañuy xëy di daan seen doole bu ñu xëyee di daaw guddi ak bëccëg weeru koor bi dañ koo daw ba mu jeex tàkk ñu bëgg ko continuer nii di wëy fi mu toll nii kenn koo gis gis nga ni dépasse ngay daw pour mën am loo nduggee dem taali ji dañ daan xëy di dagg suñuy bal di liggéey mais mënatuñ ko fi mu toll da ngay toog ba mu naaj uti loo dawi day wanteer sa bagage pour am loo ndugg ndax yaakaaroo ko ci kenn lu dul si sa ñàkk kon nañu dimbali may ñu fu ñu teg ay doomu aadama boo leen di yëkkati dag leen di teg fenn mais duñu ay xar duñu ay ay nit lañu nañ ñu teg utum ñu nañu toog leen fii ñu liggéey ndax liggéey lañu xam yaakaaruñu ko fenn ci marché bi lañ koy yaakaare mais bu bëggee ñëw yëkkatiñu day daal di bëgg a metti ba tax na nag ñoom ñëpp ñuy sàkku rek ngir maire bi nga xamante ni moom lañu fi tabb yees ngir rek mu gestuwaat leen bu baax a baax te bàyyi leen xel xam ni ñoom ñi ay ndaw lañ sàccuñu defuñu lenn lu ñaaw lu dul rek ñëw di daan ci seen doole ci bile bërëb lu ko mën nañ leen utal yeneen i bërëb yoo xam ni dinañ fa mën a daan seen doole yóbbu ci seen ay njaboot